bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin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 tey jii la talaata di fukki fan ak benn ci weeru koor gi 1440 hijriya di bi njëkk ci fukki fan yi nga xam ne saa su neen waa awsatuhu maghfira moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon fukki fan yi ci digg muy li tàmbali ci fukki benn muy tey ba ci ñaar fukkeel ba njéggaluk sunu borom la kon fukki yi ñu jeexal démb yéen mën a jëm ci digge yàlla nañ ko ci jële waaye njéggal gi mu digle ci fukki yit yàlla nañ ko ci bokk jële euh, su ko defee nag euh, muy seen émission Fardul Hayni nit fii ci seen télévision Lamp Fall ngeen du ko am bis bu nekk ci koor gi ci waxtu yi démb ñu ngi amoon ak yéen fi ñu leerale ngëneeli julli ba jeexal ko danañ ñëw ci ko yàq waaye balaa loolu ñuy njëkk rek jëmmi njiit muy imaam ci julli ak i àtteem ak ak itam maamum ak i àtteem maamum mooy ku ñu jiite ak lu aj ci jullik mbooloo kan moo war a jiite nit ñi xanaa mooy ki ci gën su ne ki ci gën nag mooy ki ci gën a ragal yàlla gën cee dégg diine ku gën a ragal ragal yàlla ëpp xam-xam gën a gën a dégg diine kooku mooy ki gën waane jigéen du jiite jigéen du jiite ay góor du jiite moroomum jigéenam mun te jiite kan ku ñuy jiite la kon ay jigéen su fekkee dañoo daje ñoom dong di julli dañu kenn kenn waaye kenn sañu ci jaay jiite kenn kuñ ca jiite ku ca maanaam su jiitee ku ko car ku caroy sa julli baaxut moo xam muy farata moo xam muy la imaam dañ caa charte ay charte yu tax imaamatu gamat charte bu njëkk ba mooy na doon góor kon bu neen nag doon góor kon jigéen rod na ni kon yi na na na doon ku mën a indi ponk yëpp bu mu wér mooy bu mu doon kon ku tëli ku tëli koo xam ne mënut a rukkoo mbaa mënut a sujjóot mbaa daal am na yum tëli ci ponk yi kooku taamuñ mu nekk imam te kooku mën ne fa lu dul nag ñam moog ñami jiite ñooyam su fekkee kenn ñoom ñëpp boo ko tëli moom man ko tëli mën na leen jiite te doon ab jullit da ci ci ko ku jullit su jiitee julli julli ko baaxut julleem baaxut ku jiitee it sax julli baaxut te laab kon ki amatul su jiitee ak julleem baaxut te ñam ji seen julli baaxut su fekkee ne xam na ko te amum xel su ne amum xel kon ab dof du jiite te doon koy jar xelam tamat mu kàllaf mu kàllaf kon gone gu mësawra gut mën te jiite jullit naafila man man mën a nekk imam ratib moo tax ñuy wax waaye mën naa jiite nag naafila bu dee gone mën naa jiite naafila donte mësawra gut naa doon itam ku wér maanaam koo xam ne du jàng di yàq baat yi te bum roy ci kenn imam du roy ci kenn ndax su day mel ni maamum maamum juy jiite kon moom moom la ñu roy waaye moom du roy ci kenn su dee roy ci kenn ak ju leen du baax ñamu jiite seen jullit bu baax su ko defee bu ko defee bu mu bu mu làmboo itam genn caay-caay ak caay-caay bu mu ca làq genn lu mel ni imaam bii kat ab njaalukat la mbaa imaam bii ab sàcc la maanaam buñ ko askan daal dara ci loo ak caay-caay la na doon koo xam ne dañ day set wicc loo kenn du ko mën a gàkkal ci dara bu dee julli mbooloo dañ cee sàtt mu teg ca doon gor léegi nag ñépp ay gor lañu na doon ko fa sax yépp maanaam ko dëkk ci dëkk bi bu mu doon gan su dee jullig jullig bu imaam raati maanaam jullig surtout jullig ajjuma ndax kii tukki moom ab bu dee gan moom julli ajjuma waru ko sax far ba di ko jiite kon imaam raati ji dañuy sàtt mu doon ko dëkk ci dëkk bi am na yuñ ca sib sib nañ imaam ju yor ay góom sib nañ imam jor salas salas leer nañ ko ci émission yi jàll mooy toqal bu ko mën a wax day génn sobetu du ko tey sib nañ imaami kaw kaw muy jiite ñu dul ay kaw kaw xëy na lañu xëy na wóote ci aada yaag gisin ci xëy na leen nit ñi maanaam am na raar ga raar mën na mën naa jaaxal mën naa jaaxal ñenn yi moo tax boroom fuqaha yu di ko wax ndax ñaar dañu am seen seen kay jóge ci kaw ga ak ki nekk ci dëkk bi dañu bokk ay aada wute aada ga nag mën naa tax ñenn yi sikk sàkk ci moom sim ne itam ju sem sem mooy koo xam ne dafa am maanaam dafa am benn lox bi dafa sew benn bi mat dañ ko sib rek waaye teew na bu julee maanaam kuñ ne sib nañ ko teewut bu julee julli gi wér kañ ne daay kañ kañ yu sib mu yor yu góom su su jiite teew julli gi dina wér ki yor salas bu new su jiitee julli gi dana wér kaw kaw bi su jiitee dana julli gi dana wér ni noonu ki sem ku dul lam sim ne itam imaam ju dul du teg dara ci bopp maanaam du kaalaw du kii day day sol bu bëri yem ca noonu imaam dañoo bëgg mu doon ko am daraja te daraja bokk na ci mu làmbaay muy jël kaala teg ko ci ay mbaggam wala ci boppam loolu bu dee ci jàkka bu dee ci jàkka jàkka nag moom moom nekkatul ñàkk a def nekkul lu ñu sib imaam yi ratib sib nañ mu doon kuñ réere mbiram koo xam ne kenn xamut ci moom dara suñ laajee luy mbirum imaam yi kenn doo ci man a wax dara xay na dëkku fii cosaanu fi wala kenn mënut tax xam ci moom dara loolu dañ ko dañoo sib mu doon imaam yi ratib sib nañ itam imam ju xarafut ku xarafut Euh, sib na sib nañ ñu di ko def imaam yu raatib suñ ko xamee loolu na daa neexut a xam bu ko waxut ndax ku fekkut ak ngoneem xëy na mënoo koo xam imaam ju yoom yi sib nañ ko imaam ju yoom jéggul dañuy jaar ci baat bi ngir mu leer rek mooy imaam ju tële góor gu tële sib nañ mu nekk imaam yu raatib sib nañ itam mu doon kuñ tàpp kuñ tàpp ba tey euh, moo moo koy ñooyam ndax mooy itam day tële sim nañ imaam ji doon ab jaam kon dañ caa sàtt mu doon gor teewut jàmba su jiitee dana wér maanaam fu ñu ne sib nañ ko rek teewut tekki nu bu julee du baax teewut su jullee su jiitee jiite na ma dañu sib mu jiite waaye teewut bu jiitee waaye lañ sib mooy def ko imaam iraati maanaam koo xam day day day sax jàkk di jiite yëpp loolu imaam iraati mooy koo xam dañ ko safal imaam carrément nga xam ne mooy jiite waaye mbooloo daje nii rek mu jiite leen julli loolu dara néewu ci sib nañ itam imaam yi ratib doon doom yi njaalo doom ju jiitu ci yoon sib nañ mu doon imaam yi ratib teewul su jiite julli gi dara baax su dee ab jullit kon ñooñu dañoo sib ñu nekk ay imaam su dee moom dagan na mu jiite ku tooña mooy borom sàkkara su tuuti bu jiitee dana baax dagan na ñu def ko imaam silmaxa it mën naa jiite mën naa nekk imaam ratib ku dotom koo xam ne mënut a wax raa raa koo mënut a wax dañoo daa dotom maanaam raa yaa la koy wax kooku teewut mën naa nekk imaam ratib ku ima ku amee ngaana ba ngaana ga wér mën naa nekk imaam ratib ñooñu ku ñu def dana wér julli mbooloo na sunna la julli ci mbooloo sunna la su wér nekk su la sunna su dëgër su am solo su lu mat a fonk lool ndax julli ci mbooloo gënee na julli kenn ñaar fukki dara ak juróom ñenn ñenn ñaar fukki dara ak juróom ñaar waaye alaa kulli xaal nag mooy ëppale na ko daraja yu bare bare bare tey woon kon ngëneelal julli ci mbooloo kon julli ca jàkk ja moo gën jullee sa kër mbaa julli feneen waaye koo xam nag dab na imaam ci julli mbooloo lu tolloog benn rakka jot na nga ne la mbooloo ma imaam day jiite mbooloo mi nga ñëw fekk rakka bu mujj ba kon dab nga ngeneel mbooloo mi soo ci xasee mu rakk dab nga ngeneel mbooloo mi mooy am nga am nga dar yooyu ko jullee ci mbooloo su fekkee imaam sëlmal nag mu door mu mottali kem na imaam defoon ca njàng ma taxawaayu jotaayam day mel ni koy julli moom dongo maanaam su fekkee benn rakkaa nga fekk ci tisbaar ma joxe ci misaal muy rakka bu mu jub imaam imaam taay sëlmal nga jug yow rakka bu njëkk ba ngay njëkk a fay rakka bu njëkk ba faatiha ku saar la ci imaam jàngoon kon yooyu faatiha saar ngay jàngoon da def na imaam demoon ci njàng waaye su ko sujjee dañ ci wute moom rakka bu njëkku imaam imaam ba mu ca ca sujjootee dafa dafa jugaat yow nag boo ci sujjootee da toog ndax mooy sa ñaareel yow am nga benn rakka muy bu mujj bi nga fekke bu njëkk ba ngay fa waaye mooy sa ñaari kon ci ngay toog imaam mu toogu ci woon kon jëf ji da ngeen di wute njàng ma ngeen bokkale ko soo taayee ba jug rakkaam ñaareelu imaam nga cee teg mu ngay fayaat imaam Fatiha ko saar la jàngoon kon da ngay jàngal Fatiha saar soo dikkee yow doo fi toog imaam mu da caa toogoon ndax imaam ñaareelam la woon yow na sa ñetteel moo tax doo ci toog soo jugatee nga jàng faatiha dong ndax mooy sa ñetteel ak te moom la ci imaam jàngoon nga jàng ko ca toog taay sëmal te moom toogu ci woon ndax ñetteelam la woon loolu mooy li ma ne kon bu bu la imaam ree ba ngay jug di fay njàng ma danga koy bokkali imaam waaye rukkoo yaa sujjóot ne mel ni kuy julli yow dong foo war su foo war toog nga toog ku julli moom dong na gisaan mbooloo mu julli sañ na caa roy dangaa julleen yow dong tisbaar gannaaw nga gis mbooloo muy julli sañ ngaa folli saraka tisbaar njëkk julliwaat tisbaar ngir dab jullik mbooloo ci ñi loolu dagan na lu dul ci timis timis moom deesu ko baamu ak gannaaw kee ki xas safaa witar ba noppi dootu baamu waaye ki julli gee witaragut gis mbooloo sañ na ca sañ na ca baamu su fekkee daa julleen moom dong jullit bi soo julee yow dong ci seen mbooloo suñu ca baamu ku am na benn rakkat ci mbooloo du ko baam ci meneen mbooloo ndax nee naa boo ci xasee am benn rakkat dam nga ngëneel mboloo ma kon doo ko baamat ci meneen mbooloo ab rakkat ñu ngi koy dab ci ab rukkoo imaam rukkoo na laata muy sigg nga nga nga kàbbar ba fekk ko ci rukkoo ba ba dëgër say loxo mu door a sigg dam nga rakkaa ba waa soo fekkul ci ruko ba nag mbaa ba ngay àgg ba say loxo di àgg lay tas ndeg misik gi ba tey rakka ba raw na la kon faaw danga koy fekk ci ruko fekk gu wér sag dab rakka boobu dooru wér koo xam ne nag sujjóot képp la fekkee ci julli gi man naa daa fekk imam ne ci rakka bu mujj ba ba ma ne ci sujjóot yee mbaa mu toll ci taaya maanaam toog na toogaay toogaay mujj bay taaya nga xam ne bu àggal taaya day sëlmal loola nga fekkee ci mbooloo mi kon daa mel ni dangaa julli yow dong ndax ima loolu bu bu ima sëlmalee da ngay fay lépp ñeent rakka yi fi bu dee julli ñeent rakka ñeent rakka yëpp ngay fay ndax bu ñu mujj ba raw na la kon soo gisaatee meneen mbooloo sañ nga caa baamu ndax amu woon amu woon nga ni la mbooloo ku ànd ak imam su fekkee génn góor la <coughs> day taxaw ci gannaaw imam su imam taxawee nii na taxaw ci gannaawam day day tolloog moom day tolloog moom waaye da koy féete gannaaw tuuti maanaam ki ànd ak imam di donc di génn ko day tolloog imam waaye imam da koy jiitu tuuti maa mën nañu rawantee nii rek waaye ci ndeyjooru imam nag lay féete moom imam jiitoo ko tuuti nit baaraam bi jiitu bi su fekkee nag ñaari mat na ñaari góor nag lañuy taxaw ca gannaaw imam moom suñ ma xasee mat ñaar ca gannaaw imam la ñuy taxaw su ñaar lu ko ëpp bari bari gannaaw imam su jigéen bokkoo taxaw ci gannaaw ñooña maanaam ñi dañuy taxaw ci gannaaw jigéen taxaw ci gannaaw ña salaasam daa wax ne ràkka bi gën sàkk sàppi si gën ci sos góor ñi mooy si ci gën a jege mooy mooy imam ràkka bi jiitu moo ci gën su dee sàppi sa gën ci suñ jigéen ñeen mooy sàppi sa féete gannaaw jigéen lu sàpp sa su su gën a mujj moo gën waaye su dee jigéen góor ñi rek euh, sàppi bu jiitu moo gën sàppi bu gën a jiitu imam bu gën a jege imaam rek moo gën a moo moo gën ba ko jiitu su fekkee day imaam ak génn góor génn góor ga taxaw ci peggu imaam jigéen ja taxaw ci seen gannaaw ñoom ñaar su fekkee ñaari góor la ak imaam kenn ka doon doon doon gone goo xam ne am na xel du julli ba yàgg mu dagg julli gay dem nañ taxaw ci gannaaw imaam loolu la nag moom na taxaw ci ndeyjoor imaam imaam bi su jullee moom dong toyaaba julli mbooloo lañ ko bindal ñëwun na ci jàkka ji bi mu daa ñëw toog na ba waxtu bi mu daa julli kenn ñëwut mu julli moom dong julleek mbooloo lañ koy bindal moom imaam jàkka soo xasee am imaam yi raatib sim nañ ñu def amal julli mbooloo ñaari yoon su imaam xasee xasee jiite mbooloo ba sëmmal ñeneen ñu dikkate buñ dem mbooloo yi dañu kenn kenn waaye kenn du ci sañ jiite kenn lool ci ngirëm Maalik dañ ko dañ ko sib julli mbooloo ñaar ñu ci ndax day indi sikki sàkk yu mel noonu imaam bu sëmbalee kon sopp nañ mu soppi aw toogiinam wala bëti ko ci wetu ndeyjooram wala mu wër bëti ko ci càmmoñam wala mu randu tuuti kuñ jiite nag sart yi tax julleem di wér juróom la juróomi sart mooy tax imaam mooy tax maamum ak julleem wér ba jiitu mooy mu roy imaam ci lépp day roy imaam ci lépp la ko daal ca kabru xarmal ba ca sama lépp na ko roy ci imaam mooy tax julleem wér kon sañu tuju sañu tuwute ak imaam bu def lenn lu gannaaw bu ko imaam defee ba noppi balaa rukkoo na imaam rukkoo ba noppi balaa siggi na imaam siggi ba noppi am na ñaar yoo xam ne ko cee jiit sa imaam baa nga defe na ko sa julli yàqu muy kàbbaru xarmal ak sëlmal soo ko njëkkee def sa imaam sa imaam soo ko njëkkee kàbbar sa julli na soo ko njëkkee sëlmal sa julli yàqu na <coughs> ni ko doon soo kàbbarandoo ak moom kàbbarandoo ak moom mooy nga tàmbalee te daanee lagut su ne allahu laataa mun a akbar yow nga ne allahu akbar sa julli yàqu na suy selmal ne assalaamu laata mooy àgg ca kum kum ja nga tàmbali sab selmal sab julli yàqu na kon defandoo ga tekki tàmbaleendoo daaneelandoo mooy nga def ko ci biiru la daaneelagut rek soo defandoo ga la sag julli yàqu na moo tax yooyu mat bàyyi xel la bala nga kàbban na nga wóor ne kàbb imaam kàbban na ba wàcc ay loxoom nga door a kàbbar salaamaaleykum na na ko wax ba ne tekk nga doon ne asalaamaaleykum lu ko may bu fekkee àggut ca kum ja rek nga tàmbalee nga tàmbale as rek sa julli yàqu na kon kabar xam ak ak ak ak sëlmal eh, ñàkkooro ci man dafay yàq julli su dee ca des nag loolu ñaar yooyu defandoo ko daa xaaraam man njëkk koo def daa xaaraam defandoo ko dañ ko sib lu mu doon na doon gën a def imaam bu noppi kon sag julli day topp ci kaw julli imaam moo tax kon soo royee te yéene woo julli ga day yàqu moo tax faaw da nga yéene roy ci imaam su fekkee da am imaam ñaareel ba ci tax julli ga wér mooy bum roy farate ci imaam ji naafila maanaam jege day la ñeent kaa nga ne ah gannaaw tisbaar laa damay jullee ko naa te ñeent rakkaal naa ko roy ci moom du wér kon deesu julli farata di ko roy ci kuy naafi la ñetteel ba ci tax julli ko mooy na yamoo ak imaam ci ak julleem bu mu roy tàkkusaan démb ci tisbaar yi tey dem ko julli woon tàkkusaan imaam ak julli tisbaar tey gannaaw ñeent raakaal ñoo toll naa ko ci roy sëg julli du baax ñeenteel bu mooy bennoo ci fay mbaa jooxe imaam tisbaar yi tey lay julli man tisbaar démb laay fay bëgg ko roy ci moom déedéet mënta nekk du wér kon na fekk imaam day joxe yoon ngay joxe mbaa imaam di fay ngay fay rek ah, imaam tisbaar démb lay lay lay lay fay yow julli woon démb nga roy ko ci moom mën naa nekk yoon tisbaar tey lay julli yow tisbaar tey ngay julli mën naa nekk waaye saa bu wutee rek julli karoy ak du du baax kon bu mu roy sobay démb ci koy joxe sobaam tey safaan bay noonu ba mujj ba ci mujj mooy topp imaam ci xarmal ak ak sëlmal mooy mooy li muy junjee léegi ndax yooyu nee naa <coughs> day njëkk koo def day yàqu julli defandoo ko itam day yàqu julli war na ci ko jiite muy maam war na ci moom mu yéene roy ci imam loolu waru gar la te ci farata yi la bokk sax limoon nañ ko ci farata ya imam nag ci ñeenti julli képp lay yéene jiite mbooloo mi ñeenti julli bu dul yooya jërul mu yéene jiite mbooloo mi maamu nag moom day jiit day roy day yéene roy ci imam waxtu bu mën a doon julli ko mën doon waaye imam nag ñeenti julli yi may bëgg a tudd rek ci la yéene jiite mbooloo bu dul googu du ko du ko jar mooy julli gi ajjuma julli ajuma imam dana yéene jiite mbooloo mi jullig boole jullig boole imam dana yéete yéene jiite mbooloo mi jullig ragal imam dana ci yéene jiite mbooloo mi ni noonu jullig wuutal imam imam dana ci yéene jiite mbooloo mi ñeent bu ci nekk dinaa ci ñëw ci bindu boppam dinaa ñëw ci jullig boole leeral mooy lan jullig ajuma dinaa ko leeral naa ñëw ci jullig boole mooy lan jullig ragal mooy lan jullig wuutal mooy lan bu ci nekk dañ ci ñëw insha allah ci ci waxi boppam foofu dama ko tuddee jàll ba ñeent yooyu ci la imam di jiite jiite jiite ci la yéene jiite mbooloo mi su dul ci nag day jiite rek waaye jël mu ci jël mu ci yéene te te julli ga dina wér kon yooyu mooy yiñ doon leeral ci lu jëm ci ci lu jëm ci liñ junjoon muy jëmmi njiit muy imaam ak ma'muum te mooy kuñ jiite ak la aju ci seen seen julli ñoom ñaar ñu doori ñëw nag kon ci yi yàq julli yi yàq ba ci njëkk mooy ko bàyyi ab charte ci sarti julli te am carte nag def ko jëleem da yàqu mel ne laab la bàyyee moo xam laab gu ndaw la moo xam laab gu mat la wala dafa bàyyi suturaal awra li ma nañ leen sàtt yi laata ñu laata ñu jóge jël ci moom lu njëkk lim wala dafa bàyyi jublu la te tey ko kon saa bàyyee ab sart ci sart yi tax julli gi wér te am na kàttanug def ko mooy da koo bàyyi ci tey jë mën a julli gi day yàqu ni ko bàyyi ci ab ponk it day yàqu julli lu mel ne bàyyi nga kàbbaru xarmal wala nga bàyyi jàng faatiha wala nga bàyyi ruko wala sujjóot taman ko man ngaa ruko wax ñu kii ko tëli ki nga xam ne dafa am problème digg mënta ruko moom da koy defee na mën a rek te julleem dana wér waaye kii ko man nag su ko bàyyee julli gi day yàqu bàyyi ëpp sunna te tey ko it lu mel ne bàyyi taaya walla bàyyi bira wala yalu te tay ko li ñenn wax day yàqu julli ga bu dul wax ju koy defar bu dul ju koy defar bu dul maanaam bu dul jëf ji defar julli ga da ko yàq jëf ju man man a wax ju dul wax yi julli gi ak jëf ju dul jëf julli gi ci lu dul lu defar julli gi day yàq julli waaye wax ju defar julli nag yàqu julli ci misaal nga ne gees mbooleen julli gi mat na matut fekk dangay ngay sikki sàkk ñu la mat na mbaa ñu ne la matut nga mottali loolu jàqut julli ndax la wax la ju ci defar julli moo tax kon wax ji defar julli yàqut julli lekk ci biir julli ak naan ci biir julli day yàqu julli waaye jëf jooju ma doon wax nag ne jëf ju ma jëf ju defar julli yàqu maa ci misaal da ngaa dox jëm ci saatir fi nga taxoon amul saatir waaye gis na saatir nga daal dox nag tuuti ngir tolloog moom ngir saatiroo ko maa da tax ci sàppis yi kaaba nañ ba noppi nga yaa ci biir julli gi gis ca sàpp si kanam foo xaaj nga dox dugg ca ba tey loolu yàqul julli dolli ci julli tatay ko dolli ca tatay ko day yàqu julli moo xam ab ponk nga dolli moo xam ab rakka nga dolli tatay ko julli gi day yàqu bu dee dafay réere gën a ñàkk xam nga mbaa jamuj ga kon bu baree lay yàqu waaye bu néew yi du ko yàq tamit nga dolli ñaar rakka bi suba ma julli saabu boo ca dolli loolu toll julli ga yàqu na julli suba ñaar la boo ca dolli ñaar mu ñeent julli ga yàqu na tisbaar ñeent la soo ca dolli ñeent mi juróom-ñett julli yàqu na timis ñett la soo ca dolli ñett mi juróom-benn julli ga yàqu na kon julli saa boo ca dolli loolu toll ci rakkaar julli ga yàqu na moo xam yaa ko tey moo xam tëye ko tamit nga dolli kon kon loolu la lu mel ni ëf te tey ko ëf li néew néew ndax ëf àtteeb wax la am saa boo ëfee ci misaal da ngaa jë fi nga bëgg ji sujjóot am melantaan nga fi nga ne ko ëf dooru sujjóot sëg julli yàqu na kon ëf soo ko tey julli ko yàq soo ko teyul na da ngay sujjóot da sujjóot baax de salaam kon nañu bëgg sooy soo dee dara nga toppale ko sa loxo bul ko ëf ni ko noonu dolli ponk boobu jëf te tey ko day day day day day yàq julli lu mel ni dal wala rukkoo ponk jëf xàqataay ci biir julli day yàq julli wàccu te tey ko wàccu xam ne yaa ko sam wàccu ñëw soba sa julli yàqu na ni ko noonu fàtte sujjóotub xabla te la waral xabla ba la waral xabla ba mooy bàyyi lu ma ñetti sun danga ngaa bàyyi lu ma ñetti sun xabla war ca nga fàtte xabla ba ba génn jàkk ja mbaa bu ba yàgg da ngay julliwaat waaye su dee la boo xam ne la nga fàtte nag mot lu néew la benn sun rek nga fàtte woon booru sujjo su fàtte ko sujjotal ba mu far yàgg julli ga yàquut sujjot ba na la mat naa xàmmee nag ko su fekkee li waral xabla bi may benn sunna képp nga bàyyi lu mel ni benn la ko la ñaari la ko bar rek nga fàtte woon wala nga fàtte sami Allah liman hamida war ko sujjootal fàtte ko ba mu xas yàgge maa nga ba nga far génn jàkk ja julli gi wér na sujjoot ba wàcc na la parce que dangaa bàyyi lu ma ñetti sunna nag dangaa bàyyi taaya bàyyi biral bàyyi sami Allah liman hamida ci misaal bàyyi ñett yëpp war a sujjoot xam la fàtte ko ba mu yàgg dangay baamuwaat julli ga jul nga day yàqu kon loolu mat naa bàyyi xel te mat a xàmmee fàttaliku julli ci biir julli day yàqu julli yaa ngi ci tàkkusaan sëmërgo sa xel na yar ci ne julli woo tisbaar tàkkusaan mi ngi nekk yàqu na soo doo julli yoo dong danga ko naan su fekkente amagub rakkaan nee ko ket tet foofu soo amee rakkaat doole ci beneen muy ñaar nga sëlmal jàppi ko naafila julli tisbaar ta jul tisbaar dool dool julli wa takkusaan su fekkee da ngaa jiite nag moom mbooloo fa nga ko fàttali ko ca saasa ngay dagge sa julli xëccal keneen wuutal ko te dem yow julli ji tisbaar dool julli takkusaan su fekkee dañ laa jiite nag kuñ jiite moom sañutu daggu julli ndax imaam da la tënk kon da ngay kon ne ba imaam sëlmal nga fay tisbaar baam waat nag takkusaan mi nga àndoon ak imaam su dee ko njiit noonu lay def kon sa fàttali ko julli ci biir julli dafay yàqu julli ak toj le ci biir julli da ngay julli ba yàgg nga sam njàpp toj julli ga yàqu na te génne ngelaw ni ko noonu njëkk a kàbbar si imaam mbaa njëkk koo sëlmal sag ba tey yàqu na ci yàqu julli la bokk wala nga ànd def defandoo ko moom bu yéexee des nag jiitu ko ci dafa xaram ànd ko ànd ko duñ ko sib parce que day mën nañu teg foofu suñu baaraam kon ba suba ak jàmm incha allah te indi leen nag ñaanu tay gi ñaanu tay gi luy taxa am jàmm la allahumma inni as'aluka salaamata wal afiyata fi dunya wal axirati nga koy wax ñetti yoon gannaaw julli farata gu nekk allahumma inni as'aluka allahumma inni as allahumma inni as'aluka salaamata wal afiyata fi dunya wal allahumma inni asaluka salaamata wala afiyata fi dunya wala axirati lu la te te jàpp xadiisu bés bi jël nañ ci jaabir ibnu abdullahi radiyallahu anhu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ilman naafian wa taawadu min ilmin laa yanfa ñaan leen yàlla xam-xam bu am njariñ te muslu ca moom xam-xam bu amul njariñ la day wane kon xam-xam bu am njariñ lu am solo Sëñ Tuubaa sax mu saan dénkaan day dégg ma xam-xam ñett yoon yu sax ci ñett ñett la ko la la ko sàmm yoonu murit xam-xam bu am njariñ ju baax ak i teggin al ilmu naafiu wala amalu saalihu wala adabul wala adabul mardi ci la tabax yoon kon moo tax yoon saa suñ dee leen ñaan yàlla xam-xam bu am njariñ tey musi ci moom xam-xam bu amul njariñ ndax xam-xam bu am njariñ daanaka sànq jëf la rek mooy xam loo xam ne du la jariñ mukk kon ñu dig leen daje incha allah suba ci waxtu yi seen mbokk Sëriñ Mor Mbacke leen seen télévision Lamp TV ñu ñaan li gën ci noonu yàlla nga sunu defal defal dëppaligal yu nu gënal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.